maa ngi lay fay bu baax macha allah ah, ci bien sûr appel bi ak euh, waajtaay gu organisation bi tey ñu nekk ci li nga xam moo di cérémonie officielle bi muy li nga xam moo di njeexintal bi euh, d'abord suñu laaj bu njëkk mooy ban tey jii nii euh, yan matuwaay ngeen jël pour bien sûr réussite événement bu mag bi nga xam ni communauté laayam yëpp mais également dem na ba yamu rek ci communauté laayam Sénégal yëpp fu nekk loo waay di bàyyeeku ku ñëw fekk événement waaw asalaamaaleykum mbokk internet yi seetaan Leral TV di am mbégte di leen sant di leen Euh, di sant suñu borom mi ñu may ñu fekkee téeméer ak ñeent fukk ak ñeent appelu Seydina Limaamul Mahdi alayhi salaam ndax woote na ne yàlla mu yónni si nit yi ak jinne yi am dëgg la am du dëgg ah nit ñi ñooy xool waaye téeméeri at moom ci lu sax sant yàlla mairie Yoff nag ànd nag comité organisation bi jàppale ko benn ci wàllu yeesal dëkk bi ci wàllu infrastructure gis ngeen pavage yi mairie Yoff tàmbali def mairie Dakar jàppale ko ci bu baax Euh, ak éclairage public bi liñ ci liggéey ak dali maanaam les les les les points yi nga xamante ne fa la ñuy dalal gan yi muy école yeeg yu ni mel ba noppi ci wàllu santé ñu defaraat plateau médical yi nga xamante ne moo nekk ci structure sanitaire euh, beneen bi mu jëm ci wàllu communication bi gis neen tey logistique bi maire Yoff déployé muy sonorisation muy ay yoo xam ne tey day jàpp ci liggéey bi ba pare fësal la nga xamante ne mooy waxtaanee ak. bi nga xamante ne mooy solos appel bi ci wàllu beneen bi gis nga ne dëkk bi yëpp ndakaaru def nañ ko ay panneau publicité pour wan waa Dakar ne yoo fa ayee Seydina Limaamu alayhi moo demee ci beneen pàcc mooy wàllu jàppale askan wi ndax lu toll ci xalifa bi ba ñu bari ci askan bi wax dëgg yàlla maire Yoff na leen ndax événement bu metti la te gan yi ñëw nañu te faawle ñu teral leen te loolu maire bi aussi accompagné na euh, population yi accompagner la famille religieuse ci ay ndimbal yu am solo yoo xam ne mooy jàppale dal yi si teeru gan yi macha allah. Euh, cette année ñu gis ne nga xam moo di appel bi mu tase bien sûr ak benn contexte mu nekk tension bu xaw a doy gis nañu euh, fan yi li nga xam ne moo di jàmmaarloo diggante jeunes ak force de l'ordre yi tey ban jàngat ngay def ci loolu en que bien sûr nekk nga maire bu Yoff am taxawaay bu am solo ci communauté lay muy surtout jëm ci wàllu waaw man dafa ci kër gu ma yaroo. mooy ahlulaay seydina limaamu alayhi salaam ni bu ñaari nit di jàmmarloo yow laay bi buñ daggee sa kurus buñ ko daggee nga koy for ngay for waa ji ne la bul for nee na ba ko fa uti beneen kurus mais seydina limaamu dafa jàngale foofu la non violence benn mais beneen pàcc bi euh, yàlla yonente bi alayhi salaam dañ bëggoon jullit bu amee lu ko naxari mu fësal ko métit lu ko naxar ko bañ dégg ko bu ci mënul dara ñaan yàlla suñu borom yàlla teggi nattu bi waaye fi ñu ci réew mi faaw kilifa yi kilifa diine ak ñi amee réew mi toog waxtaan ci yoon bu ñu mën a génne si guuta bi ndax président Macky Sall mandaam jeex na loolaa jàpp kon nag war na mën a fexe ba delloo lenge yi te benn lëñca lëñca du si am waaye dañuy woo ji ci ne réew mi bu ko yàq ndax buñ ko yàqee ëllëg suñu alal lañ koy defaraat te loolu nañu nañu ànd ak contestation bu dëgër revendication bu dëgër waaye buñ yàq suñu réew macha allah. balaa ñuy jeexale xanaa ñu bëggoon xam sa position euh, jëm ci report bi nga xam ne tey jii mën nañu jàpp ni tey li juddu lépp moom moo ko war muy report de la présidentielle ñu dàq ko ba le 15 décembre ndax loolu loo ànd na wala ànd. ànduma ci report élection yi dañ ko waroon def. ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février bi loolu moo doon yoon moo doon dëgg te ñun ci loolu lañu ñu ànd suma président Khalifa Sall wax na ko ñun ñi bokk taxawu Sénégal yépp wax nañu ne report bii bu dëgg du yoon macha allah jërëjëf.